liggéey la bu boobaa nag Sénégal dafay jël ay ndawam yóbbu leen ci diwaanu Espagne bu ñu liggéeyee ba liggéey ba jeex ñu daal di dellu siwaat ci réew mi maanaam dañu koy encadré ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi koy jox mu daal koy doxale yéene gi nee na Sanchez ak ki nga xam ne mooy Macky Sall daat nañuy signé ngir nag ndaw ñi nga xam ne nekk ci réew Sénégal man di dem ci Espagne waaye nag lépp dañu koy teg ci yoon ndax taal bu tëë tàkk anam bu nekk la ñu koy gi na Madrid li mu bëgg nag maanaam mooy def Dakar ab bunt boo xam ne ñoom Espagne danañu mën a dugg Afrique subsaharienne yéen kaay gi nee na ndaw ñi nga xam ne nekk ca Espagne jaare woon ci ndox mi dañuy wax ne dañu leen a war a indiwaat démb amul lenn lu leer loo xam ne Macky Sall daan na ko cay wax yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu sa ndaje moomee nga xam ne doxoon na diggante Macky Sall ak Sanchez njiitu réew mi di président Macky Sall ma nga fa doon defante ak Boubacar Sèye mi jiite Horizon sans frontières ndax Boubacar Sèye ginnaaw kàddu yi nga xam ne na ko ne ay koppar ngir nag mu xeex lu jëm ci wàllu mbëkk mi ba tax Boubacar Sèye sax ñu yooyee njiitu réew mi di ni ki démb daan ne kàddu yooyu ay caaxaan la moom tim andiwaat na nga xam ne moom la waxoon démb ak bërki démb amul lenn loo xam ne dina ko ci dindi te ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi yor nañu rapport waa Union européenne maanaam yor nañu ab rapport buy firndeel kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko moom Boubacar Seye Horizon sans frontières daan wax ne du polémique maanaam du piccoo ak mbaaloo waaye nag rawatina ak njiitu réew mbir moomee nag passé na ko yéen a kaay gi nee na Macky démb meroon na loola kaay gi di laas ak Sud Quotidien xëy di sampob laaj na njiit réew mi di président Macky Sall ana lan lay waajal ndax Macky Sall ni suba ci dimanche ji dana dalal mbooleem maire yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar dina dalal mbooleem député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar yéen kaay gi di réew mi Quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réew France nee na Emmanuel njiitu réew France daan wax ne li nga xam ne mooy ENA daf koy supprimer maanaam école nationale d'administration école bi nga xam ne moo doon yi nekk ci bi Emmanuel Macron supprimer bu ko supprimer dafay indi li nga xam ne mooy institut du service public bu boobaa nag mooy former mbooleem élèves yi nga xam ne ay administrateur lañu ci état bu France daan wax ne ENA nag général de Gaulle moo ko taxawaloon maanaam moo ko créé ci at li nga xam ne nag moom la ñu ca diwaanu France mooy école nationale d' administration ñoo xamante ni dañu koy ŋàññi yéen a kaay gi di source ak xëy dañu xibaar naan ñu doyen de juge moom ay témoignages yoo xam ne yu baax la ñu bari nag daat nañuy wax ne juge Samba Sall nit la koo xamante ni ku disponible la ku dal la ba pare tamit nit ku wàcce boppam la yéenekaay gi nee na am na sax ñoo xam ne nee nañu Samba Sall bu demoon sax ba lay audité maanaam bu fa yore attaaye sax daf lay xelli la yéenekaay gi di Dakar Times xëy na nag wax ne justice bi jamono ji maanaam wéet na Samba Sall dëddu na àdduna waaye nag bëri na ay dossiers yoo xam ne jamono ji dinañu ñu xëy fekk fa Moodu Fall tonton Sène lañ ko gën a mu nekk acteur nag ci série bii di Idoles Modou Fall ñu naan ko tonton Sène di ab comédien boo xam ne ràññeeku na lool séq na waxtaan wu yaatu ak réew mi quotidien daan nay wax ne ci atu 1973 la commencé woon def li nga xam ne mooy théâtre jamono jooju nag ñoom Abou Camara ak Limine Ndiaye ñoo ko doon defandoo nee na sax ci rajo la ko njëkk a li nga xam ne maanaam mooy théâtre ndax boobee télévision amutoon ne théâtre na ba mu yàgg mu jugee dem ca diwaanu France am fa lu la def li nga nga xam ne mooy feuilleton Dakar nee na bu njëkk feuilleton la ñu doon wax léegi nag la ñuy wax série moom Modou Fall ñu naan ko tonton Sène nee na ci famille 32 Damel yu Kayor la bokk wax na nag jaar gi mu jaar ci école nationale des arts école nationale des arts ak tëj gi mu tëj tax na ndaw ñu bari ñoo xam ne jamono ji tàggatu gi war duñ ko amal moom tonton Sène nee na bëri na ay ndaw ñoo xam ne ñoo ngi yëngatu ci wàllum théâtre moo leen encadré wax na jafe yi nga xam ne benn instant daal dina koy dund moom tonton Sène yéen a kaay gi di stade xëy ci classico bi nga xam ne tey jii dina